alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom jaamu yàlla dafa war bu neexee bu naqari bu wéree bu wéradi bu jaaxle bu dali mu sax di sant sunu boroom jalla wa ala mi nga xam ne moo yor ay xéewalam mi nga xam ne moo mën a tegg ay nattoom waaye borom boobu ñu ngi koy ñaan mu sax di julli ca sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa gannaaw ba ñu leen dénkee ngeen ragal yàlla sax ci loolu ba dee fekk leen ci mbokk sunu xutba tey mooy fàttali suñuy xarit suñuy àndandoo ci jaamu yàlla ca mooy ñu jege seen boroom ñoo xam ne yàlla kawel na leen ñu nar a ànd ak ñun ci àdduna nara a dëkkandoo ñun ci aljanna ñooñu mooy ñan moom mooy malaaka yi borom bi subhanahu wa taala gis nañu ne bis sunu borom mas naa yónni jibril alayhi salaam mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk sahaaba yaa ngi ko wër mu laaj ko ma muhammad lan muy ngëm yàlla lan muy ngëm mu ne ko ngëm mooy nga gëm sa boroom gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam gëm yowmal qiyaama gëm ay dogalam kon gëm ay malaaka daa ko ci ponki ngëm yi nga xam ne képp koo xamee ni nii da ko weddi sunu borom jalla wa ala nee na yéeféer nga ku weddi yàlla ki malaakaam sunu borom nee na yéeféer nga malaaka yooyu yàlla moo leen bind <clears throat> bind leen ci leer def leen ñuy jaamu yàlla yu tedd ñoom ñépp mboole seen amul kenn ku ca bon amul kenn ku ca sàggan malaaka du mooy yàlla ca la ko yàlla digal malaaka du def daara ci bànneexu bakkanam malaaka du def lu dul ndigalu yàlla yàlla def na ci ñoom duñu lekk duñu naan yàlla def na ci ñoom duñu sëy waaye it duñu sonn waaye duñu tàyyi ci jaamu borom bi subhanahu wa taala gëm gi nga war a gëm malaaka yi dana ëmb ñeenti mbir yow julit li jëkk mooy nga gëm ne malaaka yooyu ñu am lañu doonte ne yow gisoo leen comme ni ngay gëme ne jinne lu am la doonte ne yow gisoo ko ñaareel bi war nañoo gëm seeni melokaan la nga xam ne nii lislaam jàngale ne ko ca te dana am lenn luñ ci nara a tudd léegi gannaaw ñetteel ba nga gëm seen taxawaay ci jëf ca lañu yàlla ak yeneen xamal ne ña nga cay taxaw te dana am luñ ci nara wax ci kanam gannaaw ba it ñu gëm turu ña yàlla ak yeneen yonentam tudd seeni tur lu mel ni jibril wala mikail wala israfil wala malik ba nga xam ne mooy garde sawara ila axiri ay yéen mbokk julit malaaka yooyu gis nañu ne sunu borom yàlla moo leen def ci leer ñuy nekk di wàcc ci kaw suuf donte ne yàlla dogal na ñun suñu bët ni ko yàlla bindee ñu leen a gis dangay ngay gis xattaa ci doomu aadama yi am na ñu ci am feebaru bët ba yenn couleur yi duñ ko gis naka noonu itamit lañu yàlla defi kiiraay suñ digganteeg malaaka yi amma yonent bi sallallahu alayhi wa nee na su ngeen rombee ganaar ganaar gi sab na ngeen ñaan yàlla xéewal ndax daa gis la nga xamee ni nii moom mooy malaaka yi ñu ngi noonu donte ne scientifique yi dem nañ ba gis différence bu rëy ci bëtu doomu aadama ak bëtu ginaar yooyu donte ne ñun la ca te bi wax loolu la ñuy gëm noonu ñu nekk leer teewul sunu borom subhanahu wa taala may na leen ñu mën a doon ñuy wëlbatiku di mel ay yenn ci melokaan borom bi subhanahu wa gis nañu ne def na leen ñuy ay mbindaafan yoo xam ne nii mbindaafan yu bari la seen liggéey mooy la ci ëpp di sabbal seen boroom di màggal seen boroom borom boobu subhanahu wa taala daal di saxal ci ñoom léeg-léeg bu bu bu ko neexee yónni leen ñu mën a am ay yenn façon lu ñuy seeñoo doomu aadama yi comme nam feeñe woon ci xadis biñ jàng sànq jibril alayhi salaam ba muy ñëwal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melokaanu doomu aadama la indi sahaaba yépp gis ko mariama alayhi salaam keroog ba ko jibril di dikkal melokaanu doomu aadama la indi daa di doon koo xam ne nii dafa wax ak moom loolu moo tax ba ci taarix doomu aadama yi yàgg nañ gis malaaka mi ngi noonu comme suñu ay Aysa tey jii yonent bi taxaw na ak benn sahaaba bu siiwoon bu ñu wax dixiyatul bi yàlla mayoon ko taar bu kawe mu ñëw wax ak yonent bi ba dem bi mu demee yonent bi alayhi salaam na ko gis nga ki ma taxawooloon mu ne ko waaw du dixiya mu ne ko déedéet jibril la looloo tax ba doomu aadama yi musuñoo deñ di wone ne malaaka yi ñu taaru lañu ba keroog yuusufa alayhi keroog ba ko jabaru buur bi woowee ci kanamu jigéen ña ba ñu daggate seen loxo ya dañ ne xaasha lillah ma haza bashara in haza illa malakun karim dañu ne déedéet kii day du nit kii day la nga xamee ne nii mooy malaaka rek la amma bu dee malaaka nam mel dëgg-dëgg doomu aadama àttanul ci gis ko ci kaw suuf jinne yi ñu nekkal rekk bu ñu xeeñoo doomu aadama la ëpp ci ñoom lañuy tàggoog seen sago amma kan moo mës gis malaaka ci kaw suuf kenn rek la muy sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam mas naa gis jibril ñaari yoon waaye déglul ibnu mas'ud dama koy nettali yonent bi alayhi salaam nee na bi mu gisee jibril jibril mi ngi ànd ak juróom benn téeméeri laaf ca laaf bu nekk daa fees diggante asamaan ak suuf loolee sunu borom moom la melal ni mooy borom kattan gu mag gi zu mirratin fastawa zi quwa muy jibril alayhi salaam loolu la ko yonent bi alayhi salaam gisawaat ci kaw asamaan yi loolu kon moom la julit war a gëm ci seen kattan ga ak seen melokaan ba amma malaaka yooyu sunu boroom may na leen ñuy taxaw ci ay jëf yu ñuy taxaw ak jaamu yàlla yi na ci loo xam ne malaaka yi dañ ko jëf ak doomu aadama yi mboole seen am jëf yoo xam ne jullit ñi rek lañ koy jagleel am jëf yoo xam ne saay saay si lañ koy jagleel am jëf yoo xam ne yeneen mbindaa fo ni borom bi subhanahu wa lañ koy jagleel bokk na ci loolu bi nga nekkee sa biiru yaay toq maniyu sunu borom malaaka lay yónni mu daadi lay melal ci sa biiru yaay naka soox bokk na ci loolu malaak yooyu ñoom ñoo lay sàmm amul lenn luy mën dal doomu aadama lu dul ne yàllaa ci joxe ndigal waaye bu dul looloo train laag oto laag jinne laag gaynde laag lu mu a doon amul lu la mën laal lu dul malaaka yooyu ñi ngi taxaw di la garde lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min xalfi yaxfazunahu min amrillah comme na ko yàlla subhanahu wa taala daal di nettalee mbokk bokk na ci malaaka yooyu sunu borom yàlla dogal na amul benn doomu aadama lu dul boole na ko benn cheytaani bu ko topp ngir yàqal ko waaye boole na ko malaaka bu koy xiirtal ci lu baax loolee comme na nga xamee ne nii noonu la ko sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam nettalee waaye bokk na ci loolu mbokk julit malaaka yooyu ñi ngi lay sunu borom yàlla def ñuy wàcc ci yow ñaari malaaka ci suba ñaari malaaka ci ngoon seen liggéey mooy di la déglu di la seetaan amul benn wax booy wax lu dul jël nañ ko amul benn jëf booy jëf lu dul jël nañ ko di ko denc ci téere ba nga xamee ne nii moo la nar a xaar yowmal qiyaama malaaka yooyu heure boo demee bay faatu ñoom la sunu borom yàlla di yónni seen kilifa mooy malakul mawt bi nga xam ne mooy faat mboolemi doomu aadama yi am naa buy jëli baax yàlla na dana ko escorter ak malaaka yu taaru malaaka yu xeeñ yoo xam ne ñuy ñëw di bégal jaamu yàlla bi bi malakul mawti di jël ak ruuxam yàlla na yàlla boolu ñu ca ñooñu amma bu dee dangaa jaaroon fa neexul yàlla naam malakul mawt mooy ñëw waaye bu boobaa ña koy escorter mooy malaaka yu ñàng yu ànd ak ay lu ñu jële sawara ci xet gu naqari loolee ñoom ñooy ñëw di la yëjji di la rëbb heure bu malakul mawt di ñëwee di jël say jëf ay yéen boo ko jurit xam leen ni ji loolu malaaka yooyu bokk na lu yàlla farataal ci ñoom seen diggante julit ñi mooy malaaka yi dañuy bëgg julit ñi su yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla heure bu bëggee ab jaamam ci kaw suuf day woo jibril ne ko yàlla sama jaam diw dey na doon muhammad sow la fat caam la man de yey bëgg naa ko ay yow jibril na nga ko bëgg jibril daa di wàcc ci malaaka yi daa di ne ay yéen malaaka yi borom bi sunu borom yàlla day nee ne bëgg na jaamam diw ca kaw suuf man de bëgg naa ko na ngeen ko bëgg te sunu borom nee ne jibril mu taa in samma amin mooy ki malaaka yépp di déglu ay ordre am ca mooy ordre yam jële ci boromam subhanahu wa taala malaaka yooyu ñuy dalal jullit ñi ci heure bu ñu nekkee ci fitna waaye malaaka yooyu ñuy julli ci jullit ñi ci heure bu ñu leen gisee ci la nga xam ne ni moom mooy jaamu yàlla comme naka sunu borom waxe ni moo ke malaakaam day ñu ngi julli ci yéen ngir génn leen ci lëndëm yóbbu leen ci la nga xam ne muy ak leer bokk na ci jëf yooyu képp ku taxaw di jàngalew yiw malaaka yi duñ deñ di la ñaanal duñ deñ di julli ci yow ñay dem ca jàkka yooyu di xaar julli duñ deñ di leen ñaanal duñ deñ di julli ci yow képp ku génn di sakku ji xamxam xam duñ deñ di wàcc seen laafiya duñ deñ di la màggal waaye malaaka yooyu mbokk jullit yonente bi alei salaam ne na dañuy dem sax bay xëccoo ana kan mooy jëkk a far bakkaaru jullit ba nga xam ne daa ana kan mooy jëkk a yëkkati darajay julit ba nga xam ne nii daa jëm cee boroomam subhanahu wa taala loolee itamit mbokk lañu gis ne malaaka yooyu ñi ngi ànd ak julit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul benn julit boo xam ne da ngay ñaan lu dul malaaka mi la tiim di la wax amin keroog ba abi salama faato waa kër ga daje a yuuxu mu ne déet bu leen wax lu dul yiw lépp lu ngeen ñaan malaaka yi danañ ko nangu loolee itamit la waxoon ne ku ñaanal sa mbokk julit fu mu fekkewul malaaka dana la wax amin yal na yàlla may la lu gën li nga ñaanal sa mbokk julit mbokk fa nga xamee ne fa la ñuy toog di tudd bi yàlla bi di ko jàng malaaka yi daan ñëw wër leen loolee di leen seedeel la nga xam ne mooy yowmal qiyaama bisu àjjuma bii ñu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yàlla dana teg ay malaaka ci mboolem bunt yi dugg ci biir jumaa ja heure bu nit ñëwee ñu bind turam ka topp ka ca topp ka ca topp ba imaam ñëw bu ko defee ñu tëj seeni dossier dem toog di déglu la nga xam ne mooy xutba imaam boobu loolu mbokk da ngay gis ne lenn la ci loo xam ne daañ ko taxawee ak julit ñi waaye xatta bu dee nag yéefér yu bon yi ñoom malaaka yi bokkuñu lu yàlla yi ko ak ñoom mooy mbugal bañuy ñuy wàcce ci ñoom comme nam ko wàcce woon ci xeet yu jëkk ya waaye rëbb ga sax di ko rëbb yéeféer yi sunu borom mu ne ña nga xam ne ay yéeféer lañu ñu dee dee yàlla kéeféer malaaka sunu borom dañu leen rëbb malaaka yi daañ leen rëbb waaye itamit mbokk julit xatta yow julit na nga moytu am na yenn bàkkaar yoo xam ne ku ko def malaaka yi rëbb bokk na ci jigéen ñi woon gannaaw seen jëkkër bokk na ci képp kuy rëbb ay waay juram bokk na ci képp koo xam ne day tiital julit di jëmale ci moom ay arme loolu mbokk da ngay gis ne lu jar a bàyyi xel la malaaka yooyu suñ borom def leen ñu ñu organiser ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax moo nax bu ngeen dee sàppe da ngeen sàppe comme ni malaaka yi di sàppe ñoom di bu nekkee ci seen borom dañuy nekk en ordre ka a jiitu jiitu ka ca war a topp topp ca ñu daal di doon ñoo xam ne ñu jub kocc malaaka yooyu tamit dañuy gis ne xatta jibril alayhi salaam keroog ba muy def al asamaan bu mu yéeg ma daal di fëgg malaaka yi daañ ko laaj yow yaay kan daañ ko laaj ko àndal mu wax leen ko ñu doog koo ubbil comme ni yeneen ci bi alayhi salaam waxee ne bu yàlla attee ay jaamam man may jëkk a dem fëgg buntu aljanna su ko defee kay garde aljanna am nañu ne ridwaan la tudd dana jóg ne ma yow yaay kan ma ne ko man maay muhammad mu ne yow la yàlla waxoon bu ma ubbul kenn ku dul yow avant yow loolu kon ñu gis ci ñoom ak nose waaye gis ci ñoom ak déggal borom bi subhanahu wa taala seen dëkkuwaay mooy asamaan waaye yàlla dana leen may ñuy wàcc ci kaw suuf seen kàttan ci dem ak dikk yàlla rek moo ko xam am na lu ñu yàlla wan muy lumière scientifique yi dañuy wax ne dana daw trois cent mille kilomètres par seconde waxuma heure wala minute waaye chaque seconde lii di lumière dana daw trois cent mille kilomètres ci lumière boobu ci la yàlla bind ay malakaam loolu tax asamaan yi nekk ay milliards ci kaw dañ ko mën a xef xippi malaaka mën na ko traversé malaaka yooyu mbokk julli dañuy gis ne boo bëggoon a xam seen bari waay bokk na ci rek lu yonent bi sallallahu alayhi wax nee na am na benn kaaba bu nekk ci kaw asamaan ñu koy wax baytul maamur amul bis bu yàlla sàkk lu dul juróom-ñaar fukki junni malaaka dañ fa dugg te bu fa duggee dootuñu fa duggaat ba ila yawmi din amma alaxira déglul lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nee na yàlla buy indi safara yawma alqiyama wa ji a yowma idin bi jahannam sunu borom yonent bi alayhi salaam nee na sawara dana am juróom-ñaar fukki junni ci ay chaîne yuñ ko téye waaye chaîne bu nekk juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo ci téye boo jëlee juróom-ñaar fukk ko par juróom-ñaar fukki ci juróom-ñaar fukki junni chaîne dalay jox quatre milliards neuf millions ci malaaka ñoom kese ñooy téye sawara sawara di bëmb jëm ci jaami yàlla yi loolu kon mu lay won lenn ci la nga xam ne mooy seen bariwaay loolu moo tax ba ay yow mbokk julit nañu góorgóorlu ci delluwaat gëmaat malaaka yooyu bàyyi leen xel bàyyi xel malaaka yi lan lay jural dana la jural yow doomu aadama ci góor góorgóorlu loo def ci jaamu yàlla rek daal di koy xeeb loo def ci jaamu yàlla xeeb ko ndax malaaka yooyu kat suñu borom nee na guddi ak bëccëg bu ñu dog mukk ci sax di sabbal yàlla ci màggal yàlla amaa yow yaa ngi nelaw ko dem du cheka leneen ak leneen kon loo def ci jaamu yàlla xeet ko waaye bàyyi xel malaaka yi tamit dana la bàyyi loo xel nga bañee fuu ko réew wala bañee yéem ji fi kenn te xam ne mbokk suñu borom jaamu giñ koy jaamu amul kenn ku ko jaamoo nam yeyoo woon ñu jaamu ko bu doon looloo malaaka yi lay doon muy jibril ak mikaayil ak ñi ànd ak moom waaye benn xadis a ngi nii xaakim soloo ko cheikh albani ne xadis bu wér la malaaka yi yowmal qiyaama buñ dajee ci kanamu borom bi dañ naan ko subhanaka ma abadnaaka xaqa ibadatik e yàlla sell ñeel na la ñun day nangu nañ jaamu wuñ la woon na nga yeyoo ñu jaamu la ko loolee kon muy wane ne loo mën a defit bu ca yëg sa bopp xamal ne ko ku gàttam lu nga waaye ñetteel bi mbokk mooy gën a sori la nga xam ne lu xaraam la naam da koy def ngir ragal sa waaye def ko it ngir rus malaaka yooyu ànd ak yow wallahi bari na koy def bàkkaar muy góor jigéen am na kenn ci ay mbokkam wala kenn ci ay dëkkandoom bu doon moo teew du ko def mukk ci àdduna am naa sunu borom mu ne maa ngi leen booleeg malaaka yoo xam ne kiraaman katibin dañoo tedd ca ñoo xam ne dara du leen rëcc ci li ngeen di jëf yaalamuuna ma tafaluun loolee kon loolu la jàngal su ko defee mbokk malaaka yooyu sunu rendez-vous ak ñoom mooy kan mooy kan mooy bis bi amul kenn kuy sukuraat lu dul dana gis malaaka yooyu malaaka yooyu dalal di ko dalal inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla taxaafu wala taxzanu wa abshiru biljannati lati kuntum tuwaadun sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee ne bépp jaam buy faatu malaaka yi daan ñëw dalal ko heure boo de génnee sa bàmmeel malaaka yi daan ñëw dalal la naan la bul tiit bul ragal ñun ñoo nekkoon seeni xarit ca àdduna doonte ne gisul leen gisu leen ñu woon bégg leen àjjana moo leen di xaar lu ngeen bëgg da ngeen ko fa fekk luy xel bakkan da ngeen ko fa fekk yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci ñooñu loolu itamit mbokk mu lay jàngal foo mën a nekk ci kaw suuf nga la waay bul jàpp ne wéet nga yaa ngi ànd ak malaaka yi borom bi malaaka yooyu nga xam ne nii ñu ngi lay seetaan ñi ngi lay bëgg ñi ngi lay gërëm te loo gën a tumuranke ñu ci ngir diine loo gën a sonn ngir diine ñu gën a am ci yow la nga xam ne mooy cofeel amma sunu daje ba ñuy mujj daje it mooy ci biir ajjana ya sunu borom jalla wa ala ne wal malaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baab salaamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba daar heure bu ñu demee aljanna malaaka yooyu lañ fay dëkkal ñu nekk di guddeeg bëccëg di wër kër ñi di leen tagg di leen félicité di leen fàttali muñ gi mu muñoon ba mañ a tabbi ajjana ji yal na yàlla boole ñu ca ñooñu yal nañu yàlla boole ci wàlli yuy malaaka yi ña nga xam ne dañuy sopp malaaka yi malaaka yi sopp leen yal na yàlla may ñu dogu jaamoo ko comme naka ay malaakaam di jaamoo yal na yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu rus malaaka yi borom bi jalla wa ala yal nañu yàlla may ñu bañ leen a fàtte abadan yal nañu yàlla boole ci ñi ñuy bëggal heure bu ñuy faatu boole ñu ci ñi ñuy bëggal buñ génnee seen bàmmeel boole ñu ci ñay dëkkoon ak ñoom ci àjjana ya mbokk yi fitna yi bari na ci réew yi julit ñi yal na yàlla subhanahu wa taala fay ko ci jàmm yal na